xamante ne ne ñu ku ñu war a jiite suba du kenn du ko contesté dina am légitimité aussi. d'accord juste xanaa bu pour finir ban message ngay lancé ñi nga xam ñoo di waaw message bu may. waaw message bu may lancé d'abord dama koy jëmale ci acteur euh, processus électoral bi mooy ñuy superviser mooy ñuy organiser mooy ñuy représenter candidats yi ku ci ne na def rôle am parce que suñ processus électoral li ñu ko tëggee ku ci ne dafa am rôle boo joué pour mu am transparence ku si ne am rôle boo joué pour que mbir mi yemb ñi war a superviser dañu war a superviser normalement ñi war a organiser dañu war a organiser normalement bulletin yi bañ manqué dara bañ a tardé ñi war a représenter aussi candidat dañu war a toog xool saytu donc ku si ne def rôle am je pense que ku si ne su defee rôle am rek euh, lépp dina jaar yoon donc ñoom la ñuy njëkk woo ñi ne ñi mooy électeurs yi électeurs yi dañ may wax souvent jeunes yi Euh, parfois dañu naan takku nañu si si centre yi man dama jàpp ne loolu lu yo lu normal la mun na war nañu sax gën a takku parce que Sénégal âge médiane bi fii 19 ans la. Euh, te 19 ans ku ko am ku ne xam nga ne war nga am carte électeur war nga mun a voter donc ndaw yi war nañoo takku lool lu normal la su dee takku nañu war nañu gën a takku ñi jigoon xëdd ba pare dem voter euh, ak am na ñoo xam du ñàkk dañoo xëdd ba pare tëddaat waaye c'est toute la journée. nañu ñëw massivement ñu voté waaye aussi mënuñu fàtte mag ñi fii gis nañ fi ay mag yoo xam dañ leen a jàpp dañ leen a jàpp pour rek ñu ñëw voté loolu lu muy tekki mooy jouru élection dafa nekk fête pour ñëpp jouru élection dafa doon moment boo xam ne c'est un moment solennel moment bi nga xamante ne nit ki boobu rek la am pour mën a joxe kàddoom joxe baatam si réew mi nu muy doxee donc looloo tax loolu tamit dañ ci am satisfaction bu mag a mag jërëjëf merci voilà màgget mu nekkoon Thierno Bocoum bu euh, président bu alliance AG moom lañ doon recueillir propos mu voté ba pare du ñàkk rek ñi ngi xaaral di ba tey Amadou Ba xam naa dina fi teew euh, ci kanam tuuti ndax 11h lañ joxoon lañ la jox dig daje ñi nga xam ne ñoo di presse bi. Ah, foofu euh, fi nga xam moom mooy ca parcelle wala bokk HLM Grand Médine voilà léegi on tout à l'heure